وأشهد أن مح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu musloo ci seytaane mu ngi sant yàlla di sakkundim ndimbal ci moom di ko jéggulu di sàkku ci moom njub li muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wér na ni képp ku nga xamante ni yàlla jubal na ko amul kenn ku ko mën a sànq képp ku nga xamante ni yàlla bàyyi na ko ci cànkute amul kenn ku ko mën a gindi maa ngi seede di dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rekk la amul kenn kuñ koy bokkaaleel te maa ngi seede te dëggal ni sayyiduna muhammad jaamu yàlla la te ndawam la jotal na li yàlla tegoon ci loxoom matal na itam wëllëre ba laaye biir na xeet wi wuññi na njàqare li jihaat na ci yoonu yàlla na mu yaye ba yàlla xëy moom kon mi ngi ñaan salaatu salaam yàlla na nekk ci moom yàlla na ko yàlla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay saxaabaam ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan waam solo te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa li ci nekk ci ay ngëneel li ci nekk itam ci yiw ak axadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko di ko def ak ñu xam ne itam ndigal lu jóge ci yàlla fa inna asdaqa alxadis kitaabu llahi taala wa xayru alhuda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuuri muxdasatuha wa kullu muxdasatin bidaa wa kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar ñu ne wax yépp bi ci gën a wér moo di téere yàlla bi li yàlla wax moo gën a ci wax yi ñu ne itam njub yépp bi ci gën moo di njubu sayiduna muhammad mbir yépp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokku ca dina lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne def ko ñaawal loolu bidaa la te bépp bidaa ak cànkute la te bépp cànkute ku ko topp safara la lay dugal kon yàlla nañ ci yàlla musal qaala ahlu tafsir wal ahadith inna salata wassalaam ala sayyidi al anam afdalu al ibadat wa axsanu al xaalaat wa acdamu al qurbaat wa ashrafu al maqaamaat li qawlihi taala inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayyuha alladina aamanuu sallu alayhi wa sallimu taslima ñu ni ñooñ fiikatu alquran te modifikat yi ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu xadis wax ne ni julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci jaamu yàlla yi gën bokk na ci melokaan yi gën a rafet ñu fekke ko jaam bi bokk na ci yi gën a mën a jegeñal nit ki ci boroomam bokk na itam ci maqaamaat yi gën a tedd mu ne ndax yàlla moo wax ci alquraan ni wér na ni ki man yàlla ak samay malaaka ñu ngi ñaanal yonent bi di julli ci moom kon nag yéen way gëm ñaanal leen yonent bi julli ci moom kon ndigal li mu ngi jóge ci yàlla moo tax axraja al imaam ahmad wal xaakim wal bayhaqi an umar ibn alxataab radiallahu anhu an annabiyi sallallahu wa sallam qaal qaala rasulullahi qaala umar li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam afala ajcalu ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك qaala idan yakfika allahu amrak min dunyaaka wa axiratik ñu ne imam ahmad ak xaakim ak bayhaqi jëli neen ci omar ibnu alxataab radiallahu anhu omar ibnu alxataab doon wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow yonentab yàlla bi mu ne ko ndax li ëpp ndax samak ñaan ma seddale ko ñetti xaaj genn wàll gi ma koy def di ko julli ci yow yeneen yi ci des mën naa ko def alxuraan wala ma def ko leneen waaw yonent bi ne ko benn xaaj bi ma jox di ci ñetti xaaj yi doyuma soo dolliwaatoon dal moo ma gënal fa in zitta afdal mu ne ko kon bàyyil ma jël ñaari xaaj yi kon ci ñetti xaaj yi jox la ko dese benn yonent bi ne ko ba léegi itam loolu doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal soo dolliwaatoon itam moo ma gënal mu ne ko moom Seydina Umar daal wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulallah ajaalu duaai kullahu alsalaata aleyk ne ko giñ ko ci sama baay sama ndey maa ngi giñ yow yonent yàlla bi ne sama ñaan yépp danaa ko def mu nekk julli ci yow kon nga xam ne yonent bi ko xeroon la ci ñuy julli ci moom waaw ndax yiw wi ci nekk pour jullit ñu mën ko jëriñoo moo tax bi Seydina Omar waxe loolu yonent bi nee na ko idan yakfika allahu amrak min dunyaaka wa axiratik mu ni ko kon nag yàlla dana la dana doy sëkk ci gardeel la sa mbir li màcc ci wàllu àdduna ak li màcc ci wàllu àllaaxira dootoo ci amati benn problème fekk yaa ngi julli ci man ngi bëri loo koy def kon yàlla dana la teggil say problème mu àdduna ak say problème mu àllaaxira moo tax yonent bi sallallahu wax na ni man salla alayya sallat alayhi almalaika wa man sallat alayhi almalaika salla allahu alayhi wa man salla allahu alayhi lam yabqa shay'un fi alsamawati alsab'a wal ardina alsab'a wal bihaari alsab'a wal ashjaar wal nabaat wal tuyuur wal sibaa wal an'aam illa salla alayhi ñu ne yonent bi wax na ne képp koo xamante ni julli na ci man nee na malaaka yi danañu julli ci moom di ko ñaanal mu ne képp koo xamante ni julli na ci malaaka yi julli nañ ci moom di ko ñaanal nee na yàlla dana julli ci moom mu ne képp ku nga xamante ni nag yàlla julli na ci yow nee na dootul des nag dara moo xam loolu ci asamaan la nekk wala mu nekk ci suuf lu dul ba loolu dana julli ci yow ñaanal la waaw moo tax moo xam juróom-ñaareelu asamaan la maanaam juróom-ñaari asamaan yi la wala juróom-ñaari suuf yi dinañu lay ñaanal di julli ci yow ndax yaa julli ci yonent bi malaaka yi julli ci yow yàlla julli ci yow te ku yàlla julli ci yow fokk asamaan yi julli ci yow fokk itam suuf yi julli ci yow fokk itam géej yi ci yow fokk itam garab yeeg gàncax yeeg picc yi ak ndegment yi ak juru kër yi yépp danañu julli ci yow kon ki julli ci yonent bi ndeke dana màng yiwu rëy moo tax ñu ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu rëy a ngi ci ngëneel yu rëy mu ngi ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne sallallahu alayhi wa wax na ne ana xabibullahi taala wal musalli alayya xabibi faman arada an yakuna xabiban lillah fal yukthir min alsalaati alayhi yonent bi nee na man de may soppe yàlla bi nee na julli ci man sama soppe la man yonent bi bëggal naa ko sama bopp mu nekkoon képp koo xamante ni bëgg na nekk soppe yàlla nay bëri lu muy julli ci man ndax ku bëri julli ci man yàlla daf lay sopp ñu ne wa fi lxadit fa aksir bilsalaati calaya fa innaha takshifu alhumuma walkurub wa tuktiru al arzaqa wa taqdi alxawaaij dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi di digle nee na nu julli ci moom mu ne ndax julli ci moom nee na dafay wuññi njàqare yi dafay dindi itam ay problème nee itam dafay tax wërsëg bari nee day tax itam ajo yi di faju moo tax قال الإمام السيوطي إن هذه الأحاديث صحيحة وإن كثرة الصلاة على النبي تكثر الأرزاق والبركات وتقضي الحوائج وتكشف الغموم والهموم والغموم والكروب كلها بالمشاهدة والتجربة بين السلف والخلف وإن التوسل بالصلاة والسلام على سيء ala sayidina muhammad fi l umuuri kulliha waaqicun bayna al insi wal jinni wal malaika kama dallat alayhi al ayat wal ahadith ñu ni imam suyuti wax na ni nee na xadis yi yëpp ñëw di digle pour ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xadis yu wér la mu ne ndax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dana waral wërsëg yi bari nee itam dana waral barke am waaw nit ki bu baree lu muy julli ci yonent bi alalam dafay barkeel njabootam itam dafay barkeel nag léebu neen ci wàllu barke ñu ne ni ngay xamee lu barkeel ak lu barkeelul ndax li barkeelul mën na bari lool waaye bari waaye ga niru ak néewaay waaw waaw li barkeel nag mën naa néew waaye néew ga day niru ak bari waaw ñu joxe ci exemple ci li xaj di jur ak li nag di jur nag lépp lu muy jur ñaare ñaari doom lay nekk xaj bu dee jur dana jur ñaare lu ëpp fukk wante néew na lool looy dox ci àll bi ba gis géttu xaj waaw te ñaare boo génnee dëkk bi rekk commencé gis géttu nag yi kon boo dee xool dafay mel ni nag yi ñu ëpp xaj yi te fekk xaj yi ëpp waaye xaj njuram dafa barkeelul waaw ñàkk barkeel googu nag waaw moo tax nag mu bari lool ba pare niru lu néew waaw barkeelu juru nag nag moo tax mu néew lool niru nag lu bari lool ñu ne nag boo dee julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa nee na sa alal dafay barkeel lépp loo am rek yàlla daf cee def barke imaam suyuti nee na itam dafay faj ay ajo dafay wuññi njàqare ak i tiis mu ne nee na sukkandiku ci yonent bi def tawasul ci moom ci mbir yëpp nee loolu nit ak jinneek malaaka ci bokk yem waaw malaaka yi danañuy jaaxle léeg-léeg sukkandiku ci yonent bi ñaan yàlla faj seen soxla waaw jinne yi ñoom itam noonu dana ñuy jaaxle léeg-léeg su ko defee ñu sukkandiku ci yonent bi def seen tawassul ci seen digganteem ak seen boroom yàlla faj seen problème ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa waaw noonu itam la ko nit ñi di defee mu ne kama warada fi lxadis bi isnaadihi an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala raaytu leylata almiraaj malakan saqitan ala wajhihi manjuucu alajnixa mutagayiru alsuura fa qultu ya jibril man hada almalak wa ma sha'nuhu qaala hada almalak kaana min almuqarrabin bacatahu allahu taala ila halaaki qawmin fastabta'a shafaqatan calayhim fa gadiba allahu calayhi min arbaati alafi sana kama tara fa qultu ma lahu min tawba fa awxa allahu taala ilaya ann tawbatahu an yusalliya alayk achara marat fa salla almalaku alayhi achara marat fa aada almalaku ila maqaamihi al awal ñu ni bokk na ci liy tegtale ni malaaka yi léeg-léeg ñu am problème daal di sukkandiku ci def tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla faj seen aajo moo di yonent bi moo nettali nee na bu muy def al isra wal di dem ci kaw nee na ba mu àndeeg sayiduna jibril alayhi salaam nee na bi ñu demee ba ci kaw gis na fa benn malaaka malaaka mu nga xamante ni mu ngi nekk ci melokaan wu tiis nee na nekk itam ci njàqare nekk itam ci problème bu rëy nee Eh, mel ni laafam ya sax nee na dañu ko rocci ba amatul laaf yu mu naawe nee na melokaanam itam soppeekul lool nee na ba ma xam ne kii daal nekkul ci mbégte mu ngi ci tiis nee na ma daal di gestu laaj sayiduna jibril ne ko yow jibril malaaka mi mooy kan ak itam melokaan wi mu nekkee lu ko ko teg nee na ne ma malaaka mii de bokkoon na ci ñi gën a jege yàlla ndax mu ngi bokkoon ci almuqarrabin yàlla daf ko yebal bis pour mu waroon a am aw nit wu mu dem pour alak leen nee na mu xaw a xamtu nag waaw mel ni daal dafa xaw a yërëm nit ñi mu jëm pour alak leen waaw yàlla daal di koy mere ci loolu loolu nag daf lay wan ne yàlla ëpp ñëpp yërmande ku mu dem ba alak la moom xam na ni nga al ko rek moo jekku ci yow waaw ku mu dem itam ba yërëm la xam na ni itam yërmande rekk moo yey ci yow kon nag loo lu nit ki nekkee donte tiis la boo ko dee yërëm itam na nga xam ne yàlla la ko gën a yërëm bul ko ndam ne yàlla mukk yàlla moom xam na la tax loolu dal jaamam boobu kon itam donte sa doom la mu nekk ci kéeféer nga xam ne kéeféer gi ak alkande la ci moom bu mu tax mukk nga yaakaar ne yàlla def ko soxore xikma yàlla la waaw sa yoon nekku ci kooku mbiru yàlla la bàyyee ko ko waaw ndax yàlla nuux alayhi salaam bëggoon na doomam ba yërëm ko ba wax doom ja naan ko yaa bu na yarkab maana wala takun ma al kafirin ba mu demee ba yàlla xam ni kii kët yërmandeem mu ngi bëgg a ëpp yàlla daf ne ko bàyyi ko innahu laysa min ahlik kii bokkul ci sa ñoñ kon dafa mel ni yàlla yedd na foofu sayiduna noox yeddeel goo xamante ni wan na ko ne ko am na loo xam ne nag sama sama sama programme la sa yoon nekku ci kon nag bu fekkente ni yàlla digle na ne ne diw mii nanu ko rey ndax itam dafa def luñ ko wala reye ci sharia reyal rek bu fa nekk naan da koy yërëm ndax bu fekkente ni itam yaa ngi koy yërëm dafay mel ni yow yaa ëpp yàlla yërmande loolu nag moo xawoon a dal malaaka mi ndax itam moom boo ko dee xool dafay mel ni dafa ëpp yërmande yàlla ci nit ñooñu mu waroon a dem pour alak leen yàlla na daal di koy mere ci loolu bi mu ko meree ci loolu nag ci la ko teg nattu boobu lu tolloog dégg nga maam ñeenti junniy at mu nekk ci melokaan boobu waaye keroog la am chance bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defee al isra wal mi'raj ba gis ko ci melokaan woowu ba laaj ko jibril ba jibril wax ko li waral melokaan wi dal ko yonent bi daal di wax jibril ne ko ma lahu min tawba xanaa yàlla ubbilu ko buntu tuub pour mu waaw bi mu waxee wax bi rek la ko yàlla déy directement moom yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ne pour ma jéggal ko man yàlla fokk mu julli ci yow bu jullee ci yow fukki yoon daal danaa ko jéggal waaw bi mu ko waxee nag ci la yonent bi wax malaaka bi ne ko sama boroom nee na nga julli ci man fukki yoon waaw soo jullee ci man fukki yoon danga delluwaat ci sa barab delluwaat ci say ci sa melokaan bu njëkk delluwaat ci yërmande yàlla malaaka mi daal di def tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi ci diggante mag boroomam daal di julli ci yonent bi fukki yoon yàlla daal di koy delloowaat maqaamaam daal di koy jéggal ñu ne malaaka moomu walahu sabuuna alf waj am na ñu ne malaaka moomu am na juróom-ñaar fukki junniy kanam ah, kooku de kanamam ya bëri na nee na itam kanam gu nekk am na juróom-ñaar gémmiñ ñu ne gémmiñ gu nekk am na juróom-ñaar fukki junniy làmmiñ nee na lamiñ wu nekk nee na moom malaaka boobu mu ngi cay sàbbaal yàlla dégg nga ci juróom-ñaar fukki junni sàbbaal benn bu nekk bokkut ak sa moroom nee na yàlla bind na ci bépp sàbbaal ci juróom-ñaar fukki junni sàbbaal yooyu yàlla bind na ca malaaka mu nga xamante ni mu ngi toog rek di jéggulul ka nga xamante ni mu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi nekk fii ci suuf bokk ci umma muhammad sallallahu alayhi kon ndiki ñiy julli ci yonent bi sallallahu alayhi yàlla bind na benn jëmmu malaaka boo xamante ni am na juróom-ñaar fukki junni kanam kanam gu ci nekk am na juróom-ñaar fukki junni gémmiñ gémmiñ gu ci nekk am na juróom-ñaar fukki bu ci nekk mu nga cay sàbbaal juróom-ñaar fukki junni sàbbaal nee na sàbbaal bu ci nekk ci sàbbaal boobu yàlla bind na ci malaaka mu nga xamante ni mu ngay jéggalul ki nga xamante ni mu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon kat ndeke julli ci yonente bi xéewal gu rëy a ngi ci nga ñaay lu rëy a ngi ci moo tax ñu ne ida btuliya al muminu bil masaa'ibi wal amraad wal xumum wal kuruub aw yatlubu al manaasib wal wa wabtuliya bil faqri wal dilla fal yuksir as fi layali wal ayam ñu ne képp ko nga xamante ni nat bépp jullit bu ñu nattoo ay musiba wàcc ci kawam wala ay feebar wala kiy njàqare ki tiis wala itam nga bëgg barab boo mënta jot nga bëgg caa jot wala yàlla nattoo la nga nekk nit ku doyadi wala nga nekk nit ko ñàkk ba kenn faalewu la nee na del bëri looy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddeeg yàlla mën na laa Eh, dimbale defal la ay xéewal yoo xamante ni dana la bett ñu ni julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa bari na ndax salawaat yi bari nañu lool parce que du benn salaatu rek moom moo am salawaat yi bari na incha allahu xam naa du ñu mën a indi yépp waaye dana am yenn nat rek yuñ ci indi ñu ne am na salaatu bu ñuy tuddee assalaatul munjiya fi tafrijil kurub wa taxsilil margub ñu ne am na benn salaat bu ñuy tuddee salaatul munjiya ñu gën ko gën ko miin ci salaatan tunjiina ñu ni salaatu boobu dana di wuññi ay njaxare dana itam faj ay problème salaatu boobu nag mag ñi xiir nanu nit ñi ci pour ñu koy def di ko jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ngëneel yu rëy def ci nekk salaatu boobu nag moo di allahuma salli ala sayidina muhammadin salaatan tunjina biha min jamici al ahwaali wal afaat wa taqdi lana biha jamica alxaajaat wa tutahiruna biha min jamici alsayi'aat wa tarfacuna biha acla aldarajaat wa tuballiguna biha aqsa algaayat min jamici alxayrat fi alxayaati wa bacda almamaat ñu ne salaatu bi moo di salaatul munjiya ñu ne boo ko dee firi danga naan allahumma yow buur salli yàlla nga dolli xéewal ala sayidina muhammadin ci suñu sang muhammad salaatan xéewal gu nga xamante ni wala salaatan julli goo xamante ni tunji naa bihaa dangñu ci mën a musale min jamiil ahwaali ci mboolem njàqare yi wal afaat ak mboolem gaaf yi wa taqdi lana yàlla nga ñu ci fajal jamii alxaajaati mboolem aajo yi waaw mboolem aajo yi lépp lu ñu am ci aajo julli gi ñuy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yal na nekk sabab bi tax nga faj aajo yooyu wa tutahiruna biha yàlla nga ñu ca laabal seetalal ñu ci min jamii sayiaat ci mbooleem ñaawteef yu ñu nekke woon moo xam fen la moo xam jëw la moo xam rambaaj la moo xam ak moy la yépp yàlla nga ñu ci laabal ba ñu mucc ci mbooleem ñaawteef yi wa tarfauna biha yàlla nga ñu ci yëkkatil yàlla nga ñu ci yëkkatee ci sababu ñaan gi ci sababu julli gi ala darajaat nee na ci gën jàkkawey daraja ya waaw ci barke ñaan gi ci barke salaatu bi yàlla nga ñu yëkkati nag jox ñu ay daraja yu kawe wa tuballiguna biha aqsal gaayaat yàlla nga ñu ci yeggale nag ca gaaya yu sori ya nga xamante ni xalaatuñu woon mukk ne danañu ci àgg min jamiil xayraat ci mboolem jiw yi fi lxayaati ci dundu àdduna bi wa baadal mamaat ak gannaaw dee waaw kon kii ñaan-ñaan gi mu ngi ñaan yiwu àdduna ak yiwu àlla yonent bi sallallahu alayhi ni su ngeen di julli ci man na ci boole samay ñoñ ñu salaatu bi boo ko liiree ba mu jeex nee nan amul li ñuy tuddee ñoñ mu di al al ñu ne nag li gën mooy nga dugal ci nga dugal ci al bi nga xamante ni mooy firi ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon au lieu ngay wax allahuma salli ala sayidina muhammadin salaatan tunjina biha min jamici al ahwali wal afat ba mu jeex dañu bëgg ci diggante boobu nga dugal ci aal nga wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin salaatan tunjiina biha min jamici al ahwaali wal afaat wa taqdi lana biha jamica al xaajaat wa tutahhiruna biha min jamici sayyi'aat wa tarfacuna biha acla darajaat wa tuballiguna biha aqsa algaayat min jamici alxayrat fi lxayaati wa baada almamaat bu njëkk ba baax na wante bii bi am aal dañu wax ni moo gën a moo ëpp moo gën a bëri yiw te itam moo gën a yaakaarlu ñu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne iza sallaytum faammimuha fa taathiruha maa dicri atam wa aam wa akthar wa asra yonent bi su ngeen de julli ci man na ngeen ko matal na julli mat waaw te moo di nga boole alihi ñu ne nag al mooy mbooleem xeetu yonent bi sallallahu alayhi waaw képp koo xamante ni rek sa ngëm wër na waaw sa ngëm waaw sa tegu ci sunna wér na yaa ngi bokk ci ñooñ sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon la mu waxoon ne yërmandeem yépp nee na mu ngi ci xeetam ndax yàlla daf ko yónni mu nekk yërmandew xeet wi bëgg na itam lépp lu mu am bokk ko xeetam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne kon bu ngeen di julli ci man na ngeen ci boole sama njaboot njaboot gi nag mooy képp koo xamante ngëm dëgg-dëgg mu ngi ci sa xol da nga bokk ci xeetam moo tax yeneent yëpp gaawtu nañu def seenuk ñaan waaye moom bi ko yàlla waxee ni ko ñaanal daf ne damay xaar ba ëllëg samak ñaan ma ramboo rammoo ko sama xeet kon kooku e, yërmandeem ci xeet wi ëpp na sallallahu alayhi wa moo tax ñu ne kon fa tatiruha maa dikri al atam wa aam wa akthar wa asra ñu ne ñaan gi ngay ñaan wala julli gi ngay julli ci yonent bi boole ci ay ñoñam nee na ñaan googu moo ëpp yiw te moo gën a matale ne na te moo gën a gaaw cig nangu mu ne fa in daa bihi alfa marra fi jawfi lleyl li ayi xaajatin kaanat fa innahu asrau lil ijaaba min albarqi alxaatif ñu ne ñaan gii di salaatan tunjina nee na ku ko nee na ku ko def junni yoon nee na bu guddi gi xaajee na nga def ko ci mbir ak mbir mu mën ci doon nee mbir moomu yàlla dana ko faj ci lu gaaw nee na te nee na ñaan la gu gaaw ci faj aajo ba gën a gaaw sax nee na melax gu xuy moo tax qaala cheikhul buuni fi xawaasi hadihi salaat maanaam sëriñ boobu ñuy wax Cheikh Albuni wax na ci ngëneel yi nga xamante ni nekk na ci solaatan tun jinaa bi mu ni ngëneel yu rëy ngi ci yoo xamante ni ragal nañu sax nee di ko wax ngir ragal rek mu tegu ci loxo loxoy kuréer ba mu def ci musiba wala mu def ci njaajaan njaay kon nag solaatu boobu mbokk na ci solaat yi nga xamante ni dañ koy julle ci yonent bi muy jur itam ngëneel yu rëy ci ki koy def ñu ne nag yàlla baax na mbaaxaay goo xamante ni bu sañoon jaamam yi di ko ñaan waaw ndax kat yasaluhu man fi samawati wal ard du nit ñi rek ñooy ñaan yàlla yàlla nee na nee na li nekk ci kaw asamaan ak li nekk ci kaw suuf ñépp ñu ngi may ñaan ndax kenn amul dala man rek am kon li ki géej yéeg jéeri géeg garab yeeg njanaaw yeeg ñépp nañu ngay ñaan seen borom di ko sabal kon yéen nit ak jinne di leen ñaan yàlla te itam di ko sàbbaal moo tax ñu ne képp koo xamante ni ñaan xëy na ñaanul yàlla mu yëg ko wala mu bañ koo yëg yàlla mere na ko waaw ndax boo xëyee ñaanuloo yàlla dafay mel ni kon yow danga jàpp ne yàlla dafa nay te yàlla nayul ndax kat mu ak tab ci moom la bàyyi ko moo tax ñu ne salaatu yi bari waaw ba tax na itam yow mi nga xamante ni jóg pour fas yéene baril looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi waxuñu la salaatu bu ne nga jël ko tey nga jël bi ëllëg nga jël bële gannaaw ëllëg nga jël ba ca des déedéet waaw waaw tànn ci rek benn boo xamante ni danga nga cay nekk sax ca bu yàggee lépp dana la fekk si moo tax ñu ne wa yajuuzu zikru salaati alwaxida waaw huwa afdal min dikri salawaat nee na dagan na nag nga tànn benn salaatu di ko def nee na moo ëpp ngëneel nag salaatu bu ne nga bëgg ko jël mu ne ndax wax ne ne fa inna miftaaxal asraar zikrul wird bi takraar xataa tamlikal junuud wa rawxaaniyiin wa yucinuunaka fi qadaai xawaaijik wa yakunu dalika al wirdu isman acdam eh, isman eh, isma acdam min xaqiq li dawaamika bi takraari ilayhi ñu ne mag ñi wax nanu ne nee na caabi secret yi nee na moo di nga jël werd boo xamante ni da koy baamu waaw di ko baamu mu nekk werd bu nga xamante ni moom ngay jëfandikoo waaw mu ne ndax werd bi nga jël di ko def waaw sax ci rek di ko def nee na soo ko dee def dana tax nga mën a dégg nga am pouvoir ci soldaar soldaaru yàlla yi nga xamante ni yàlla daf leen délégué pour nit ñi ak yi nga xamante ni yàlla daf leen délégué pour nit ñi pour ñuy faj aajo yi nit ñi di leen dimbale su ko defee eh, werd boobu ngay jël di ca sax nee na dana dana tax nga mën a am doole am pouvoir nee na ci mbindeefu yàlla yooyu su ko defee ñoom ñu mën laa jàppale nag ci faj say aajo su ko defee tur woowu ngay jël walla salaatu boobu ngay jël di ko def dana dem ba dana dafay xaw a nekk sax ismulaay la adam ci yow ndax rek sax gi nga sax di ko def mu ne loolu nag li koy dëggal moo di li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna allaha yuhibbu almulixiina fi su'aal walmukarririna fi talab waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla bëgg nañu lëj lañu ci laaj waaw ak ñi nga xamante ni dañuy baamtu seenug ñaan ci bu ñuy sàkku xam nga nga gis ne kon yàlla moo gën a baax te ak mbaaxam kenn du ko tëkkal kenn du ko tëkkaleeg mbaaxu kenn nga xool bépp nit bu nga xamante ni taxaw nga di ko laaj lu mu am donte sax bis boo ko ko laajee mu jox la ko ndax am na ko su yàggee dina la jéppi ndax sa laaj yu bari waaw moom la waykat ba wax ne nit ñi de soo leen dee laaj suuf bis bu nekk waaw benn nga bu suuf ñu koy tibb di la ko jox nee na yomb na lool ndax suuf si kenn terewu ko kenn waaye nag nee na soo leen ko dee laaj bis bu nekk bu yàggee ñu jànni la waaw day wane ne kon yàlla rek la nit di laaj bis bu nekk mu cay kontaan di ko gën a bëgg nga cay gën a jege yàlla waaye keneen keneen ku dul yàlla soo ko dee laaj rek bu yàggee mu nëbbu la waaw moo tax borom alal yi ki ñu gën a ragal mooy ki leen di laaj ñemewuñ ko mukk buñ ko gisee seen fëdd seen fit day day day daal di rëcc waaw ndax bañ rek mu laaj leen waaw yàlla nag moom li mu bëgg mooy ku koy laaj kon léegi eh, boroom alal yi ñoom ñooy contraire lu yàlla yàlla dafa bëgg jaam bi di ko laaj mu koy jox borom alal yi nag ñoom dañoo ragal ko leen laaj waaw wala doomu aadama sax dafa ragal ku ko laaj ndax doomu aadama li mu am sax doo ko dee laaj. lu mu ko yomb yomb bu yàggee mu jànni la wala mu jéppi la moo tax yonent bi wax na ni inna allaha yuhibbul mulixiina fi su'aal wal mukarririna fi talab yàlla bëgg na ñi koy lëjal ci laaj bëgg na ko ak ñi nga xamante ni itam seen façon ñaanin duñ ko duñ duñ ko changé waaw ni ñuy ñëwee di ni waaw salaatu bi ñu jël boo léegee moom la ñuy jëlaat boo léegee moom la ñuy jëlaat yàlla noonu la ko gën a bëggee tey nga jàng salaatu bi ëllëg nga jàngaat beneen salaatu ah. ñu ne kenn du nangu sa ñaan waaye kii sax ci benn bi di ko def moom mooy gën a gaawle ak ijaaba moo tax yonent bi waxaat na ci xadis ne jaamu yàlla yi bi ci gën mooy ba ca gën a sax doonte sax néew na waaw lu mu néew néew te sax rek moo ñu gënal waaw ki nga xamante ni tey mu julli fukki rakka su ëllëgee mu julli ñaar fukki rakka su gannaaw ëllëgee mu julli juróomi rakka su gënaawaate ëllëgee mu julli ñaar fukki rakka boobu gënaluñu li ñu gënal mooy donte sax bis bu nekk euh, maanaam euh, bu ëllëgee nga toog bañ a julli wala bu ëllëgee euh, nga julli bañ a la kooku amaluñu benn njariñ bi ëpp njariñ moo di ne ki nga xamante ni saa bu jullee ba noppi balaa tëdd dana naafila ñaari rakka ñaari rakka yooyu moom moom du ko faat mukk bis bu nekk daf koy def ñu ne ñaari rakka yooyu la muy néew néew moo gën ki nga xamante ni tey mun naa fi la téeméeri rakka te boo ëllëgee du ko def waaw ki nga xamante ni bu teyee mu naafi la téeméeri rakka te boo ëllëgee du naafi ki nga xamante ni mu ngi naafi la ñaari rakka bis bu nekk yeneenti bi nee na ñaari rakkaam yooyu la yàlla gën a gis téeméeru rakka yële kële def te boo ëllëgee dootu ko defaat kon jaamu yàlla yi bi ci gën mooy bi ci gën a sax donte sax néewu na waaw moo tax ñu ne ñu ne bëgg nañu itam ci wàllu boo dee def boo dee julli ci yonent bi nee na nga boole ci adat xanaa kooku dafay junju benn salaatu bu am solo te incha allah danañ ci agsi nee na ndax axraja annasaa'i wa ibnu xibbaan walxaakim an abi umama radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra bihi wa huwa yuxarriku shafatay fa qaala maada taqul ya aba umama qaala adkuru rabbi waaw qaala alaa uxbiruka bi akthar wa afdal min dikrika alleyla maa annahaar wannahaar maa alleyl nee na nasaa yi génnee na ak ibnu xibaan ak xaakim ñu jële ci abi umama yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci ñoom ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom abi umama nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam romb na ko bis nee na maa ngi toog rek nee na di zikar di yëngal nag sama tuñ maanaam am na lu may jàbbatu di ko wax nee na yonent bi ñëw ba ci ma ne ma maada taqulu ya ab ya aba umama yow aba umama lan ngay wax ma ne ko man kat damay tudd sama boroom damay zikar yonent bi ne ko ala uxbiruka bi akthar wa afdal min dikrika al-layl ma an-nahaar wa an-nahaar ma al-layl yonent ne ko xanaa doo ñëw ma wax la lu ëpp ngëneel te gën fuuf waaw zikkër bii nga saxoo di ko def guddeeg bëccëg waaw mu ne ko lan la yonent bi daal di koy wax nag ñaan gi ne ko dangay wax subhaanallahi adada ma xalaq subhaanallahi mil a ma xalaq subhaanallahi adada ma fi l ardi wassama subhaanallahi mil al ardi wassama wa subhaanallahi adada ma axsa kitaabu wa subhaanallahi adada kulli walhamdulillah mislu dalik wala ilaha illa allah dalik wala xawla wala quwata illa billahi misla dalik wa gayraha misla dalik la ilaha illa allahu muhammadu rasulullah fi kulli lamxatin wa nafasin bi adadi kulli maalumin la wax ko 313 yàlla dana faj say aajo te itam dana yëkkati say martaba waaw ñaan gi nag li muy firi moo di maa ngi sàbbal sama boroom li mu li mu bind waaw xam nga adat bi mu fi tudd la la bëgg junjune la soo ne limu mu li mu bind li yàlla bind bari na waaw kon bu fekkee yaa ngi tudd yàlla yaa ngi sàbbal yàlla li la mu bind kon su fekkente ne yàlla topp na lim boobu benn par benn benn par benn yow mii sàbbaal bu ko yàlla nangoo say yiw dana bari moo tax ñu ne kon nag ci wàllu tasbiix ak ci wàllu taxmiid dégg nga eh, boo dee wax alhamdulillah wala ngay wax subhanallah ne neen bëgg nañu nga boole ci dégg nga adat te yooyu itam am na lim yu ci yon am na ñaan yu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe bokk na ci ñaan gi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon dégg nga Aba Umama moo tax am na sëriñ bu ñuy wax Muhammad as si wax na ne astaghfirullah min kulli ma astaghfirullah min kulli ma kariha allahu fi kulli lamxatin wa nafasin bi adadi kulli maalumin nee na baax na itam ci wàllu istigfaar boo dee jéggulu sa boroom nga ne yàlla maa ngi maa ngi jéggulu yàlla ci lépp loo xamante ni yàlla bañ na ko maa ngi koy jégglu nag ci bépp gendeeku ak bépp noyyi nee na ci limu lépp lu yàlla bind moom itam mu nekk ñaan gu am solo astaghfirullah min kulli ma kariha allahu fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maalumin ñu ne am na benn salaatu bu ñuy tuddee alsalaatu tafrijiya alqurtubiya wa yuqaalu laha inda almaghariba alsalaatu naariya ñu ne am na benn salaat bu ñuy tuddee salaatu tafrijiya alqurtubiya moom itam ak julli la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñu boo mu ne salaatu boobu nag nee na soo demee maghrib nee na moo ñu ngi koy tuddee salaatu naariya ñu ne ndax lu tax ñu ne li annahum ida araadu taxsila taxsila almatlub aw dafca alkurub yajtamicuuna fi majlisin waxid wa yaqra'uuna hadihi alsalaat annaariya dégg nga bi ñu ne li tax ñu tuddee ko nag salaatu naariya maanaam salaatu bi nga xamante ni dañ ko askanale ci safara ndax dafay def aajo waaw dafay dafay dafa gaaw ci aajo ni safara gaawee ci këyit waaw mu ne ñoom temps bu ñu masaana bëgg amal benn mbir wala am problème yu leen gane si ñu bëgg a dàq problème yooyu ak njàqare yooyu nee na dañuy toog ci benn barab nee na daa daal di dajaloo nag daal di jàng nag ñaan gi jàng salaatu bi nee na ci lim bi nee na nag lim bi moo di 4444 4444 lim la boo xamante ni baax na ci salaatu bii ñu fi bëgg indi mu di salaatu yi nee na bëri nay tur nee na borom xam-xam yi boroom secret yi borom mbóot yi moom la ñuy tuddee alkëndul muxiit li nay li muraadil abid waaw maanaam ndamb li nga xamante ni dafa peeg mbooleem dégg nga maanaam dafa peeg eh, càkkuteef jaam yi ci li nga xamante ni bëgg nañ ko ci aajo bu yàlla ndëxañ na ko ci biir ñaan googu moo tax mu ne am na ay lim ndax Cheikh Mouhamad at Tunisi wax na le man daawama ala qiraati hadihi salaat nee na képp koo xam ne saxoon a jàng ñaan kii fukk ak benn nee na loolu dana yombal wërsëgam nee na am na beneen sëriñ bu wax ne képp koo xamante ni jàng na ñaan gi ginnaw julli gu nekk nga jàng ko fukki yoon ak benn nee na mu def ko mu di wirdam boo xamante ni du dog bis bu nekk mu ngi koy def nee na allah balaa faatu dana am nee yàlla dana yokk koom-koomam te itam dana am daraja yu rëy daraja yu rëy mu ne itam képp koo xamante ni saxoo nga ko gannaaw julli suba ñeen nga def nga koy def ñeen fukk ak benn nee na aaju boo ci jublu yàlla dana ko faj moo tax imam bi wax na ne man daawama ala hadihi salaat kulla yawmin nee na képp koo xamante ni saxoo nga ñaan gi bis bu nekk nee na ñeen fukki yoon nee na wala téeméer wala nga koy def 313 nee aajo ya ngi ci jublu yépp yàlla dana ko faj ñu ne nag ñaan gi moo di allahuma salli salaatan kaamilatan wa sallim salaaman taamman ala sayidina muhammadin alladi tanxallu bihi alcuqadu wa tanfariju bihi alkurabu wa tuqda bihi alxawaa'iju wa tunaalu bi ragaa'ib wa xusnu alxawaatim wa yustasqa algamaa'imu bi wajhi alkarim wa ala aalihi wa saxbihi wa sallama fi kulli lamxatin wa nafasin bi adadi kulli maalumin lak ñu ne loolu moo di ñaan gi moom la ñu tuddee euh, alsalaat altafrijiya alqurtubiya waaye waa maghrib yi ñu ngi ko tuddee alsalaatu naariya ñu ne nag tuddee nañ ko ba tey miftaaxu xadainillah bi fatxi liman daawama alayha wa yusiluhu ila ma sha allah ñu ne tuddee nañ ko itam dégg nga caabi magasin yàlla yi nee na ndax la yàlla dëxëñ nee na ci ay dégg nga alal ak i koom-koom nee na salaatu bi mooy caabi ji nga xamante ni moo koy ubbi mu ne wante nag bi charte ki nga xamante ni à condition nga saxoo ñaan gi di ko def waaye waxuñu rek nga def tey bu ëllëgee nga bàyyi moo tax ñu ne waalam anna hadihi salaat أن أن هذه الصلاة هي للتوسل بذاته المحمدية إلى الله كما في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة ñu ne ñaan gi nee na nit ki dana ci def tawassul ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi jëmmam ju tedd ja nee na pour mën a joti nag ca yàlla ca maqaamaam yu rëy mu ne ndax yàlla moo wax ci alquran ne wabtagu ilayhi alwasila su ngeen bëggee agsi ci man na ngeen ko jaare ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag ñu ne inna hadihi salaat kanzun min kunuzillah kon nag salaatu bii di salaatu naariya ñu ne ndàmm la kopparfoor la ci kopparfoor yi yàlla yi moo tax ñu ne ki nga xamante ni e, ñu ne beneen ñaan a ngi nii itam beneen salaatu pour ki nga xamante ni bëgg na tabarakallahu Eh, def tawasul ci yonent bi pour gën a mën a jege boroomam mu ne nga wax yaa rasulallah anta baabullahi wa lam yakun lahu baabun gayruk jituka maa kathrati zunub wal isyaan wa haariban min dunubi wa zalamtu nafsi wa sunatak nga daal di jàng aaya bi walaw annahum id zalamu anfusahum jaa'uuka fastaghfaru llaha wastaghfara lahum rasul la wajadu llaha tawaaban rahima ñu ne ñaan gi ku ko jàng ci guddi ajuma dégg nga maam e, bis bu nekk nga jàng ko ci guddi ajuma junni yoon nga bàyyiwaat ba beneen ajuma ji ñëw nga jàng ko junni yoon neneen kooku itam baax na lool ñaan la goo xamante ni ngëneel yu rëy mu ngi ci mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ñuy julli ci moom wax na ne itam nañuy julli ci moom nee na guddi ajuma ndax julli ci moom guddi ajuma baax na ndax kiy julli ci moom nee na fa mu tëdd ci bàmmeelam malaaka yi dinañu muri rido yi ba mu waa ji julli ci moom nee na te itam jëfam yépp danañ ko ko gaar ci bisu àjjuma kon nag jamono boobu fekk la ngay julli ci yenent bi ngëneel yu rëy daf ci nekk kon tabaarakallaahu mbokk yi foofu lañuy ñuy yem ak yéen